jërëgeen jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu andi leen xabaar bu tiis bi nga xamante ne bii sànq la ñu dab muy génn àdduna mbër mii di Moussa Dioum nekkoon ci làmb ji léegi la ñu jot xabaar bi ñuy xamal ne Moussa jum mii génn na àdduna Moussa jum nag bokkoon ci mbër yi gënoon a xereñ ci làmb ji bokkoon na ci benn tournoi bu ñuy wax CLAF bëree ak champion yu bëri ci làmb ji Moussa Dioum mii nekkoon tête de file bu écrit parcelle Mbooloo gannaaw ba mu toogee ab diir nag kenn gisatu ko woon ci làmb ji lu tolloog juróom at ñu gëj koo gis ci làmb ji Moussa jum mi la ñu jot ci xibaar ne dafa génn àdduna ñu koy jaale axlu làmb yépp jël njaal mi teg ko ci loxo CNG Moussa jum ñu koy ñaanal suñ borom yóbbu ko ca arjanaam yu kawe ya teeru ko ak malaaka yërmande yiir ko malaanu yërmande ci barke sangu sang yi di ko jaale bu baax a baax ay mbokkam rawatina waa écrit parcelle mbooloo yépp mbokk yi di leen fàttali xibaar bi mooy génnuk àdduna mbër mi di Moussa jum di leen wax ne dinañ leen toppal xabaar bi nag kañ leen koy denc ak fan leen koy denc incha allah bu ci yàlla àndee daañu leen ko toppal fii ci Leewtoo TV à travers sama kàddu personnel bu Leewtoo TV yépp ñi ngi jaale ak lu làmb yépp champion bii fi jógee ñu koy wax Moussa Dioum di ko ñaanal suñ borom yóbbu ko ca àjjana yi gën sangu sang yi